weñ ci gént lañ lay firi ay weñ ci gént li may njëkkee mooy nga gént gis aw ñam wooy lekk nga gént ci biir ñam yi ngay lekk ba ci di gis ci ay weñ ci biir ñam yi baaxul bokk na ci màndarga yi firi benn liggéey ci sa yaram liggéey bu la jàpp walla cat ci sa yaram képp koo xam ne da lekk ba ci biir nga gént gis ay weñ ci biir ñam wi wutal muslaay benn ci cat wala ci liggéey da nga gént gis ay ay ay weñ yu bari yuy naaw biiw la sonal la léeg ci yow euh, da nga gis ay di dàq ay wen ñi génn sa kër walla ñi génn sa néeg yaa ngi def ay pexe daal ba ñu génn si biir génn gi di fëgg muy génn ñaar ya baax na dina firi su fekkoon daf laa fekk ci nekk ci yoon wu neexul yàlla di mooy yàlla wala di njaal wala yéen day firi génn ci bu fekkee daf laa fekkoon ci euh, jafe-jafe xat-xat day firi jafe-jafe xat-xat yi dañ ci yow bu doon da laa firi ci naqar fekk ci naqar na firi naqar wuy dëkk aji feebar ji daal gént ñam ci gémmiñam weñ ci gémmiñam ngeen baal ma sa biir gémmiñ gis weñ mu génnee ci danga gént weñ génn ci sa gémmiñ te fekk jamono yi ngay géntul daa fekk nga feebar ay firi wér ci feebar naka noonu kun ala xasabi xaalatihi yow mu nekk ci jafe-jafe ki xar-xar nekk ci problème gént ay weñ génn sa gémmiñ day firi jafe-jafe xar-xar ak torof mi dañ ci yow euh, voilà xale bu jigéen bu amul jëkkër gént gis ay weñ léeg-léeg dina firi njàqare xat-xat ak tolof-tolof ci sa dund yoo xam ne dafay dem ci wàllu relation ci wàllu amour walla ci wàllu liggéey képp koo xam da nga gént gis weñ wala ay weñ ci biir gént bi yaa ngi def ay pexe pour dàq leen lu too génn sa néeg nga nekk aw weñ nekk fa sonal la fa pexe boo mën def nga pour weñ génn mu të dàq nga jéem nga rey mu të baaxul lan lay firi ñaari firi la am benn bi dana firi nattu yàlla ci yow boo xam ne dafa nekk sanction maanaam yaa nekk ci moy yaa nekk ci caaxaan wala di lekk lu leen wala dundee lu baaxul ba nattu bu yàlla tegu sa kaw benn firi wala boog nga ànd ak nit koo xam ne jikkoom baaxul nit ku doy waar boo xam ne jaxasoog moom mën na la indil jafe-jafe xotxot ci sa biir voilà Euh, da nga gént sa saal wala sa néeg mu fees dell ak weñ weñ yu bari ci sa néeg wala ci sa saal baaxul day firi xabaar bu naqari gënu ci gént maa ngi leen fàttali ne ñu am gént dugg leen ci page YouTube bi ngeen recherche seen gént yi euh, li ngeen di laaj ay question li ëpp su ma ko toppee chaque jour nit laaj ma ay nit laaj ma question boo xam ne mënoon nañu am réponse ci deux minutes ci vidéo yi te or que yaa ngi toog naan man li ma gënal mooy ma jot ma mu film parce que day am ay détails te or li ma la film mooy li ma wax ci vidéo yi léegi day am loo jàpp sa xel te demee bu fekkee nag yow li nga choisir te bëgg ko mooy nga jot moom ma film la gént mën naa nekk wax dëgg waaw waaye nag dafa am fay nekkul gratuit dangay ngay fay 2000 francs soo noppee nga woote dégg nga euh, euh, jigéen boo xam ne yaa ngi ci néegu sëy nga gént sa waañ fees dell ak i ak i weñ wala nga gént sa sa sa sa duus fees dell ak weñ baax na day fi di tolof tolof ak xar-xar jafe-jafe ci sa néew say wala ci sa euh, ay weñ yu bari léeg-léeg ba jéggi dayoo léeg-léeg dina fi di ngay fàggu alal alal joo xam ne dagalul géntu lekk weñ wala weñ dugg ci sa biir gémmiñ ci biir gént baaxul ñetti firi la am benn bi dana firi feebar wala mu firi jafe-jafe ka xat-xat wala mu firi yow ci sa jëm bopp nga nekk ni ko xam rambaaje ay nit da jaxase ay nit di wax ci ay nit wax ju ñaaw yaa ngi may laaj weñ fan la baaxee ci gént wax naa la benn it mooy da gént di leen dàq ñuy génn sa kër wala di leen génnee sa néeg wala nga feebar wala sax nga nekk ci jafe-jafe gént weñ génn ci seen gémmiñ wala nga gént rey weñ wala rey ay weñ moo xam ne leen tàpp ñu dee wala tam leen pompe wala leen posone lu mu ci mën a doon ba ñu dee dafay firi mucc ci jafe-jafe xat-xat mucc ci naqarat mucc ci euh, lor mucc ci àndandoo bu baaxul comme yu bon yi ma la wax mucc ci feebar mucc ci yëpp yëpp comme li ma la wax sànq yëpp mucc ci liggéey mucc ci cat boo génte rey ay weñ jàppal ni léeg yi ma la wax te baaxul yëpp mën na wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu